أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi ànd ak yéen ci téere bii di charhu du'a min al kitaabi wa sunna firi ñaan ci téere yàlla ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu tolloon ci barab ak ay waxtu ak ay guddi ak ay bëccëg yi nga xam ne yàlla def ci nangu ñaan tey ñoo ngi jël ñaar ba ca jiitu mooy addu'a xaalatu iqbaalil qibla ala allah wa shtidaadil ixlaas nit su fekkee da ngay ñaan yàlla fexeel ba nga jublu qibla qibla mooy sooy julli fi ngay jublu foofu mooy qibla su fekkee da ngaa bëgg ñaan yàlla may la sooy ñaan tourneel nga jublu nga jublu qibla qibla mooy fan. mooy kaaba gi beneen bi mooy na nga teewal yi sa sellal na nga sellal ñaan gi seet ñaan gi na nga ko jubal yàlla kese mu ne fa huwa sababul a'zam wal aham lil ijabati du'a nee na gis nga fii moo gën a màgg mooy sabab yi gën a rëy yoo xam ne jaam war na ko yittewoo pour yàlla nangu ñaanam sabab yi gën a rëy yi nga xam ne jaam war na ko yittewoo war na góor góorlu pour yàlla nangu ñaanam mooy fii mu ne hada hada al adab huwa aadamul aadab fi ijabati du'a teggin bi tegginu jublu xibla tegginu sellal ñaan gi mooy teggin yi gën a rëy pour yàlla nangu ñaan nit fexeel nga jublu xibla fexeel nga teewal nga sellal pour yàlla nangu sa ñaan imaamu Shawkaani nee na moo bind naylul awtaar nee na hada al adab huwa azamul aadaabi fi ijabati du'a nee na teggin gi moo gën a rëy moo gën a màgg pour yàlla nangu sa ñaan li anna al ixlaas huwa alladi taduuru alayhi dawairul ijaba ndax nee na sellal mooy tomb bi nga xam ne nangu ñaan ci lay wër képp kuy sellal yàlla day nangu ñaanam sellalal rek boo sellalee rek soo ñaanee yàlla may la moo tax yàlla mu ne fad'u llaha muxlisiina lahu diin walaw karihal kaafiruun woo leen ko moom yàlla ñaan leen ko su ngeen koy ñaan na ngeen sellal bu leen ko dendale bu leen ko boole bu leen ko bokkaaleeg dara nee na même yéeféer yi bu ñu bañee lii yéen na ngeen nangu loolu yéen ngeen koy def fa man daa rabbahu gayra muxlis foo xaqiqatun an laa yujaab ku ñaan yàlla te sellaloo yàlla bu ko neexee mu bañ koo nangu soo ko ñaanee même bu dee jullit nga soo ko sellalulee yàlla bu ko neexee mu bañ ko nangu waaye yàlla moom wees na foofu bu ko ñaanee rek mu may la waaye nag dañu bëgg mu gën a gaaw a gaaw mooy nga sellal ndax sellal fu mu nekk nangu nekk fa sellal fu mu nekk rek nangu nekk fa walil ixlaas inda allahi taala mawqi sellal ca yàlla dafa am barab kuy sellal ci yàlla ku fa am daraja la ku fa am place la mbokk yi alxuraan leeralal nañu ci téere yàlla bi yéeféer yaa ngi nii ba ñu sellalee seen ñaan jagleel ko yàlla kese kese donte ne ay yéeféer lañ yàlla nangu na seen ñaan te ay yéeféer lañ waaye dañ koo sellalal yàlla jëme ko yàlla kese kese yàlla nangu seen ñaan te ñoom ay yéeféer lañ waaw bu yàlla nangoo ñaanu yéeféer bu sellal kon jullit bu sellal nag moom su ñaanee nu mu war a mel yàlla nee na yéeféer yi wa isa rakibu fil fulki da'awu llaha muxlisiina lahu diin fa lamma najjaahum ila albar ida hum yushrikuun xoola yéeféer yaa ngi nii yàlla di mel di leen melal di ñu won li ñuy nekk ay yéeféer li ñuy bon li ñuy yées suñu dee safara lañ jëm terewul bu ñu duggee gaal dem ba biir géej vague yi daal di jóg lëndëm gi commencé asamaan yi xiin dënu bi commencé géej gi rëngi rëngi vague yi tremblé nga dégg yéeféer yi daal di woo yàlla kese kese kese kese ne ko ay yow yàlla ay yow yàlla boo ñu musalee ba ñu génn géej gi deewuñu yow yàlla danañ la sellal yàlla xam na ne dañuy fen waaye terewul mu sauvé leen gis nga de lu tax foofu yàlla dangu seen ñaan ndax dañoo woo yàlla kese moo tax al imam muhammad ibnu abdul wahab nee na yéeféer yi démb yi ñoo gën jullitu tey yéeféer yi démb yi ñoo gën jullitu tey yi ndax yéeféer yi démb bu ñu demee ci biir géej bu ñu sonnee kan la ñuy woo yàlla tey jullit yi bu ñu demee ci biir géej bu ñu sonnee ku ñuy woo sëriñ yi allahu akbar ñee ay yéeféer lañ bi ñu demee bi ñu sonnee kan lañ woo ñun ay jullit lañ bi ñu demee bi ñu sonnee kan lañ woo sëriñ yi rek sëriñ yi rek lañ woo sëriñ yi kilifa di ay yow kilifa gi ay yow kilifa yi boo ñu màggalee boo ñu sëvee ay yaa diw yaa yaa yaa Cheikh Baye Demba yaa Cheikh yaa ah yaa Cheikh Baye Ndaaga yaa yaa yaa yaa Cheikh Góora yaa yaa yaa ñooñu lañu woo wala ñu woo yàlla ñuy woo ay nit ñuy woo ay nit allahu akbar ole ñu woo yàlla kon sella la ngi nii fa huwa taala yalamu annahu sa yauduuna ila shirkihim te moom yàlla kat xam na ne ñii bu leen sëvee bu ñu delloo dañuy delluwaat seen bokkaale dañuy delluwaat seen kéeféer waaye loolu yëpp yëpp yëpp terewul ne moom yàlla nangul na leen seen ñaan lu tax dañoo sellal moo tax gis nga jullit war a sellal boo sellalee rek boo woowee yàlla yàlla wuyu la yéeféer yaa ngi nii ba ñu sellalee seen ñaan ba ñu woowee yàlla yàlla wuyu na leen kon ab jullit suy ñaan na ñaan yàlla kese kese kese bu mu ko bokkaale ak kenn mbokk yi ñaareel bi ci luy wane ne yàlla dina nangu ñaan mooy daawatul mazlumi ala man zalamahu ñaanu ku ñu tooñ ci ku ko tooñ képp koo xam ne dañ laa tooñ soo ñaanee yàlla ki la tooñ yàlla fayul la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na Muaz ba mu koy yónni yaman yonent bi dafa woo sahaaba bu tudd Muaz di ko yónni yaman pour mu dem jiite yi liggéeyu islam bi foofu ca yaman mu ne ko Muaz mu ne ko labbayka ya rasulallah mu ne ko ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laysa baynaha wa bayna allah hijab Muaz yaa ngi nii di dem waaye mooy tandikul nga tooñ ndax boo tooñee ki nga ki nga tooñ bu la ñaanee yàlla yàlla alag la mooy tandikul ñaanu ku ñu tooñ tooñ baaxul wa qala nabi daawat al mazlum mustajab yonent bi nee na ñaanu ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu wa in kaana faajiran même bu fekkee ki ñu tooñ bandi la saay saay la yéeféer la day naan sàngara day njaaloo soo ko tooñee rek bu la ñaanee yàlla yàlla nangul ko wa in kaana fajiran fa fujuruhu ala nafsi même bu fekkee kàccoor la kàccooreem googu boppam la ko def wa qaala ittaqi daawat al mazlum wa in kaana kafiran yeneen bi nee na mooy tandiku leen ñaanu ku ñu tooñ même bu dee yéeféer la yéefee sax soo ko tooñee yàlla faral ko kon bàyyil tooñ mag warul tooñ xale xale warul tooñ mag góor warul tooñ jigéen jigéen warul tooñ jëkkër warul tooñ jabar jabar warul tooñ borom doole warul tooñ néew doole waaw ku nekk na nga ragal yàlla bàyyi tooñ bàyyi leen gone yi ngeen di napp bàyyi leen mburu xale yi ngeen di lekk bàyyi leen tàngal xale yi ngeen di sàcc bàyyi leen bonbon booy yi ngeen di rocc ragal leen yàlla bàyyi leen tooñ am na benn waay boo xam ne daa tooñoon muy jaay doole mu tooñ la daa fekk benn nappkat napp ngandum jënam mu ñëw rek dóor ko kurpañ ndax moom police la woon nappkat bi di gën tërër rek mu dóoraat ko beneen arrêt nappkat bi daanu mu jël jën bi dem jaay ko bi mu jëlee jën bi yóbbu ko nappkat bi toog amul lu mu yóbbu këram danaan dem jaay jën napp jaay jën jël jën bi jaay ko yóbbu këram waa këram lekk keroog nag amul lu mu yóbbu këram waa ji bi mu yóbbee jën bi bi mu koy yóbbu jën bi jam ko ci loxo bi ci baaraam bi mu dem jaay jën bi jël xaalis bi def ci poosam mu tëdd guddi bi rek baaraam bi fu ko jën bi jamoon commencé métti affaire bi métti métti métti métti métti ba munta nelaw mu dem hôpital mu ne sama baaraam bi de day métti ñu ne ko lan moo la ci gaan mu ne benn jën moo ma jam ñu ne ko lii dafa am tooke baaraam bi foog ñu dagg ko pour nga nelaw mu ne dagg leen ñu dagg baaraam bi mu dellu loxo bi gën a métti mënul nelaw mu delluwaat ñu ne ko foog ñu dagg ténk bi fii poignée bi foog ñu dagg ko mu ne dagg leen ñu dagg mu delluwaat mu gën a métti mu delluwaat ñu ne ko foog ñu dagg conc bi mu ne dagg leen ñu dagg léegi nag mu nekk loxo bu kët muy jaar ci mbedd yi moom waa jooju mu naan yaa man yaraani laa taslimanna ahada e yéen ñi may gis bu leen tooñ kenn de e yéen ñi may xool bàyyi leen tooñ bu leen tooñati muy wër ci mbedd yi di wax loolu naan yaa man yaraani laa taslimanna ahada e yéen ñi may xool e yéen ñi may gis bu leen tooñati de bàyyi leen tooñ ndax man tooñ moo ma def nii tooñ baaxul jullit du tooñ soo tooñee rek yàlla intervenir wallahi alazim soo tooñee yàlla intervenir ci ki nga tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaanu ku ñu tooñ même bu dee yéeféer la yàlla du ko delloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti nit yàlla du delloo seen ñaan ñetti nit ku ñu tooñ daawatal mazlumi tuxmalu alal gamaami dañ koy yenu soo soo tooñee nit ba ki nga tooñ ñaan la yàlla malaaka yi ñooy yenu ñaan gi yóbbu ko kaw asamaan suñ demee ba kasam aw asamaan yonent bi nee na yàlla day ubbi asamaan yi yàlla mu ne wa izzati la ansurannaka walaw baada hin yàlla ne giñ naa ci sama màggaay kii dinaa ko dimbali lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg kii dinaa ko dimbali kon mbokk yi tooñ baaxu dañ bàyyi tooñ ñun ñëpp nanu ragal yàlla bu nu am doole di nappaate bu nu am alal di nappaate bu ñu jekku di nappaate bu ñu mag di nappaate nañu xam ne boo amee doole am na ku la ëpp doole boo amee kàttan am na ku la ëpp kàttan boo amee mën-mën am na ku la ëpp mën-mën yaa ko mën yàllaa la mën kon ragalal yàlla yaa ko ëpp doole yàllaa la ëpp doole yaa ko ëpp pexe yàlla moo la ëpp pexe kon ragalal yàlla yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku tooñ nit yàlla tabaraka wa taala dina ko fayul yenent bi nee na mooy tënduku leen tooñ iyaakum wa zulm fa inna zulma zulumaatun yowmal qiyaama mooy tënduku leen tooñ ndax tooñ ay lëndëm la ëllëg yowmal qiyaama boo deewee dootoo gis ci lëndëm ngay nekk ndax yow tooñkat nga waaw yàlla tabaaraka wa taala nee na maa leen ëpp doole te man tooñu ma leen kon bu leen tooñ inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaalu wa jaaltuhu baynakum muharrama fala tazaalamu yàlla nee na maa leen ëpp doole fop te tooñu ma leen def naa tooñ ci sama bopp muy lu araam ma araamal ko ci yéen kon bu leen tooñante yàlla nee na tooñkat yi xam naa leen ëllëg fu nu dugg dinaa leen lu xarti génne leen kon mbokk yi loolu mooy ñaareelu dars ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ñun dégg ak topp ñu ñaan yàlla mu moytu ndikuloo ñu tooñ ñu ñaan yàlla mu sàmmal ñu boppam assalaamu aleykum wa rahmatulah